plus grande proposition que je fais un état sérieux n'a pas besoin d'une télévision encore moins d'une rajo ak d'un journal soleil RT soleil ak RTS dañ ko war a privatiser ubbi capital bi privé yi ñëw dugal seen xaalis ñu def ko une gestion privée Sénégal yëpp yem ci. mais par rapport ak fonctionnement bi ça a changé ndax li ngay gis daal dal na xel. lan ci RTS par exemple. ah man de am na ñu ma fay seen ñoo xam ne jàpp na war nañoo dund ba dee duñ doon a tudd seen <laughs> war nañoo dund ba dee duñ waxuma la génn ci écran télévision. waruñu fa dem mais dëgg la bu maanaam en scène de bassin waruñu fa dund mais écoutez des charlatans qu'on nous présente comme des comme des comme des chroniqueurs mais d'abord ces gens-là ils ont beaucoup participé à la crétinisation de l'opinion publique mm-hmm. maintenant on on les met à la RTS mais la RTS c'est pas du n'importe quoi la RTS ça fait partie de ce qu'il y a de meilleur en matière de journalisme au ah. Sénégal tout comme le Soleil maintenant bon site ku yoroon benn site internet di live nga jox ko ki kër gu toll ne RTS koo xam ne dañoo nekkoon ci benn. mais arrêtez de parler de Pape Alé comme ça. je ne parle avant d'être quelqu'un bu nekk ci site nekkoon na 2STV dafa am liggéey bu am solo. Oh, loolu aussi xëy na <laughs> ah, fàtte président.